loolu rey ma bi ñu ko waxee loolu ba xale yi naan ko ba ma def maam de. te loolu waaw loolu maam moom la kii. di ko taawi mais super clip. merci quand même pour oui super bi neex na xamante ne ñoom laa fekk ci kër gi di nuyu euh, école revue yëpp déjà fii sama kër la. Mhm. su may nuyu rek kenn la ñu nuyu muy grand frère yi Sundu. Mhm. Euh, passage bi jàpp mooy muy kër gi donc c'est normal ñu nuyu ko et mi fii sama kër la. sa kër la moom sa kër nga ñëw. mais euh, ma bëggoon wax ci clip bi un petit peu euh, déjà écriture yi paroles yi la moo tax jékki-jékki rek bind ki yegul lu xew inspiration fu muy jógee baxaaw yow daa am loo xamante ne day ñëw jékki-jékki sotti la affaire yi. wala wala euh, c'est c'est comment. composition wooy bi naka la naka lay demee. si juste de man dama damay formaté sama bopp a chaque fois su ma dangay da ngay xam li génération bi fi ñu toll ak ak fi grand yi fi ñu toll. donc dafa am benn tendance bu xew dafa am loo xamante ne ay mots yuy génn. Mhm. chaque année dafa am ay mots yoo xamante ne day exister si si donc boo jotee à chaque fois su may essayer génne benn morceau damay essayer créer benn thème boo xoolee suur na après suur na. tu mhm. as la laakee après la laakee yëgoo lu xew. c'est des sons yi nga xamante ne day marqué sénégalais parce que c'est des choses yi nga xamante moom moo existé. Mhm. Sénégal fee ñu bëri exemple yëguñu lu xew. lu tax yëgoo lu xew ngay gis nit boo xamante ne tey parfois. Mamadou Ndiaye mun na ko taxaw pendant des années. Mhm. tey Mamadou Ndiaye mun na bañ a am jotu lenn wala mun na am mun na nekk ci beneen objectif wala mu nekk ci beneen direction. jàpp rek Bijou jàpp na ne moom waa ji pare na ci moom. Mhm. parfois Bijou da ba mhm. ba ci te dafa nekk loo xamante ne mun nga ko situer ci kër mun nga ko situer ci mbedd bi mun nga ko situer ci politique bi mun nga ko yóbbu fu nekk fépp la am place. mais euh, justement comment tu pour tout le temps comme li ma la wax rek damay côtoyer man damay côtoyer. waaw renouveler wu parce que même en dehors de euh, yow yi ngay bindal sa bopp même yi ngay bindal ñeneen ñi. Mm-hmm. t'arrives quand même à suivre. Mm-hmm. évolution wu musique évolution wu euh, liy xew en termes de parole évolution wu liy xew en terme de style. Mm-hmm. et c'est pas simple en fait j'imagine. parce que damay gis ne man aujourd'hui tey majeure partie yu bëri yi si gars di way. Euh, yu ci bëri sama loxo day jaar. Mhm. Mhm. donc je pense que ne tey su ma koy defal nit de temps en temps war naa mën a bon xaar ma xool sama bopp lu may may loolu moom mooy juste que. damay bëgg di euh, fréquenter génération bu nekk dama leen di mhm. côtoyer damay côtoyer ñëpp après damay déglu ñëpp du sama avis rek moom may doy mhm. parfois su ma defee beneen nit jël sàmba bi jël ngaaka woo ku ci nekk danga may jox sa avis si morceau bi mhm. mais justement parlons du clip c'est un clip très stylé déjà casting bi. casting bi. Hmm. parce que on a Fa Aïdara la basketteuse là comment il s'appelle encore. Yacine Diop Yacine ak euh, Black Fatwa. Black Fatwa ouais. casting bi c'est juste que def euh, ak des personnes yu jege yu may jege. Mhm. Euh, ñu yombalal ma liggéey bi. Mhm. bi ma njëkkee au OMG. moom laa njëkk a wax na ko OMG dafa am benn clip idée bi yow laa nga def ko. mënuma mhm. je pas bien fan yi mais naa la présenter une personne du nom Black Fatwa. Mhm. franchement ku aay la ci affaire yooyu. Mhm. bi ma woowee Black Fatwa expliqué ko projet bi mënuma y' a pas de problème y' avait d' autres ñu yónnee ay nit bi ma woowee Faa Aydara aussi ñu toog waxtaan. mënuma gis naa ci diw Faa Aydara exemple moom moo ma imposé jaara. dama si serait bien nga jël que lii ak lii Yacine bi ma après ñu dem ba ci digg bi ku ci nekk ñu jox la texte bi jox la son yi jox la lépp après dem seet caat euh, caatu yaayam mooy styliste bi. Mhm. na ko lii lañu bëgg décor lii lañ bëgg. lii lañ bëgg bu ñu paree ci styliste bi ñu dem seeti euh, moom moo joxe accessoire yi. Mhm. après ñu dem kër Yang Fresh. bu ñu paree jox lépp Charik benn booy bu dëkk Mbour moom mooy def vidéo yi tamit na ko Charik vidéo baa ngi nii. ñu réaliser ko ñu réaliser ko aussi ñoom ñëpp ak xol defuñu ko ak coono dañ ko def ak xol ak yéeg yëg moo tax euh, voilà yàlla def ci résultat mais ñu maîtriser parole yi ñoom tamit dugg ci biir. ah dañ ko dama leen ko jox depuis presque. ci biir jox bi ñu. son bi jox naa la ko à peu ay ay une semaine parce que ñoom boo xoolee majeure partie ñoom ñëpp dañuy faral di def genre affaire yi def challenge ne dafa dafa dafa facile bi ñu defee challenge bi si si TikTok bi damay gis yeneen personnes yoo xamante ne mais mais mais man la moo tax xooluma woon parce que ñeneen <laughs> ñoo xamante ne dañ leen di gën a yéeg niveau mais bon après le plus important moom mooy ñoom def nañ ko nuñ ko waree et puis euh, voilà ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy suivre partout. c' est c' est bien et puis ak challenge yi da ciy gisaat yeneen comme ni ma yeneen talent léegi ak inspiration booy yi nga xam ne ci réseau yi dañu dañu inspiré am talent pour euh, wax la ni Bakhaw déjà euh, yaa ngi au bi mu am vécu bi mais seen personne boo xam ne vraiment généreux euh, générosité moo ko moo tax nga gis sànq bi ngi doon wax que ni. Euh, li nga xamante ne da ko am mais humilité aussi ah parce que nee na day partager. déggoo ma ne la genre ñu muy ñu bindal ñu muy composer il faut vraiment que tu sois dans le milieu pour xam ne que xaw mooy def lii moo bind lii. mais sinon jamais il va venir pour euh, pour pour wane ne que lii maa koy bind lii maa koy def. et pourtant boo doon lim artistes yi nga xam ne Baxaw moo nekk si ginnaaw di leen bindal fii tey Sénégal doo doo doo. jaru ko parce que boo defee li ngay def ci ku am talent am am habitude di def yenn yi ngay def jaru ngay loolu risque que talent bi à chaque fois mooy fay et puis gis nga pa euh, carrière am macha allah yàlla ko yàlla gën a yokk mais en tout cas nga xamante ni toujours d' actualité. Mm. et ça inspire beaucoup de euh, wax réflexion pour certains jeunes mais surtout nekk ci euh, mode bi nekk ci in bi nga xamante ni. ci mouvement boobu la en parce que c' moom moo ñuy en dañu am ay. genre lan ngeen ko wax. pour mu pour mu. solal leen lii parce que c'est c'est c'est urbain c'est. moom dafa déglu dafa déglu morceau bi mën na ko dafa am benn morceau bi may def. boo uh-huh. xamante ne ne Cap Guel ñoo à la ci clip moo doon gën a moo doon gën a kii quoi fait bi ma ko waxee ma ne ko lii lañ soxla c' était prévu plus de quatre tenues parce que boo xoolee si clip bi am na ay séquences yu bëri sax defuñu ko. ak mm. ay tenues yu bëri soluñu ko. parce que on était fatigué dañu sonnoon te et puis koor ngi doon waaj ñëw période boobu mm. veille koor gi la woon donc il mm-hmm. fallait que woon gars mariste la woon donc dañ fa nekkoon de dix heures bu benn heure bi donc dañu commencé woon dix heures ba ban heure on a tourné de dix heures presque bay une heure deux heures du matin mais clip lan muy jël temps noonu bu gudd boobu ah, oh, loolu dafa nga fa nga ma woo Chalik mu ñëw toog ah. fa mu expliqué la ku ci nekk si ñoom prise nekk si ñoom c'est-à-dire moom mën na am ay rush yoo xamante ne ne deux heures de temps lay lay am si image mais deux heures temps yëpp lu mu siy soxla du mat trois minutes wala deux minutes léegi foog muy jël exemple bi ju filmé nañ la nga wax benn affaire mhm. dañ la koy seere la ko mhm. large côté la ko jël la ko si waaw dama doon bàcc tey dama doon toog ñuy tourné clip may may sonal rek dama doon <laughs> dama doon toog clip dañuy commencé dix heures mos nañ tourné benn clip boo xamante ne euh, matin bi lañ commencé di ko tourné ba minuit minuit mais am na ñoo xamante ne moom seen clip mun na bañ a jël deux mun na jël sax trente minutes. mun nañu taaj la caméra bi nga def benn play ba pare non mais je pense que loolu loolu. fecckat di sol yëre ñu taxawaat beneen côté. mais xam nga loolu tam du résultat bi ngay am buñ dee waxante dëgg. après aussi après aussi. mais ça aussi ça joue. après aussi faut savoir aussi mettre la mettre mettre de l'argent xam na mm. tey boo bëggee am vidéo bu rafet man moom comme je dis ah defatuma vidéo pour impressionner quiconque damay def parce que plaisir la. Mm-hmm. damay def parce que dama ci am ndogalu aussi sama groupe Da Brains. déjà mm-hmm. ñu ngi pare déjà benn single bi xamante ne mi ngi tudd lii mooy Sénégal. waaw namoon nañ leen. mi ngi tuddaat si même concept bi la c'est un morceau qui s'appelle lii mooy Sénégal. Mm-hmm. lii mooy Sénégal maanaam sénégalais moo lay wax takkal jabar. nga takk jabar sénégalais mooy tas sa sëy Sénégal <laughs> moo lay wax takkal jabar nga takk jabar yéex a am doom mu ne dafa jaasi. dëgg moo lay tiim ne la dafa bon dafa bon nga dee mu bind la rest in nit ku baax la. donc sénégalais moo lay wax li def la ci des. donc ça va bientôt sortir mooy dëkk bakkan jàmm la bëgg. <laughs> loolu moom yàkkamti naa ko ba xaw parce que message bu actuel la boo xamante ne vraiment nit yi soxla nañ ko on s'occupe trop de la vie des autres li ñuy lijjanti yëpp suñu yoon le fait de regrouper euh, xale yu jigéen yi yëpp ci tournage bi. Mm. Euh, ñoo xamante ne peut-être y a des gens qui se connaissent d'autres pas comment ça s'est passé. en ñëwee dès le ku ci nekk xamoon nga déjà euh, kan ak kan moom moo nekk ci clip bi parce que waxoon naa ne leen telle personne ak telle personne ak telle personne la. Mm. dajewuñu woon fenn même bu ñuy jël seen mesure sax dajewuñu. Mm-hmm. dañ daje si dañ daje jour tournage bi. et puis bu ñu dajee jour tournage bi bu mu leen présenté xamante nañ woon nañ ci man bi ma tourné wee di di xool leneen ñoom si seen biir commencé woon nañ def yeneen TikTok yoo xamante ne c'était n'avait rien à voir di fecc ma ne man ñii dama la ñëw pour sama clip ñoom ñi ngi yeneen affaire ñoom ñi ngi bëggee daal ñi ngi bëggee bien c'était fun ñu def ko sans problème sans sans complication sans problème bi sans baxaw li ku ci mm. nekk si ñoom ñëw nga franchement téye naa la fa benn heure bi waxoo ma damay bëgg ñibbi. waxoo ma mhm. dama sonn waxoo ma da def dara su ma leen wax bi ñu defee dernier tournage sax ba mu ne leen ñaari séquence kese moo des xam la ñu ma wax en ah bon ana yëre loolu kese lañ lay wax et puis da ngay sentir dañ la ko defal ak xol. et puis euh, non mais nañ waxante dëgg nag yow ku la fay li ngay def ci kaw ci nit yi. yow de war nga ma fay xol yow. yow ak Madodo war ngeen ma fay. man sa jarbaat laa grave. yow ak Madodo war ngeen ma fay. en tout cas en tout cas ñi ngi xaar euh, single bi di ñëw. et bravo pour euh, pour ce clip. et on espère que après single bi dinañ leen gis ci album na parce que baxaaw yooyu ñeneen ñi ngay produire la doo produire la. il faut dama leen bëgg xam nga lan laa bëgg man. Hmm. bu la ma jox autorisation bi ma def ko produire leen yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi biir TFM. yow Mouhamed benn morceau rek nekk way loolu leen ko ngeen def ko générique TFM. amul problème ba pare daf ko def ko it. amul problème du xam nga casserole. waaw yow mun nga way yuuxul benn way ma xool n'importe quel way. ma essayé. <laughs> waaw mën nga tàggoo. <laughs> te essayé rek dama dama dégg ay rumeur que ne yow da ngay faral di wayandu. man heure moo wooyee kii yi toj. essayé léegi may ñu benn vitre yi. may benn sa fan si. waaw bul tax bul tax. incha allah fay. yaa ngi dégg yow grand yi mën nga way ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma a bëgg bàyyi ma <laughs> samay mbokk bàyyi ma. mais bravo bravo la sànq dafa doon wax loo xamante ne yu bari dañuy so sûrement ñi seetaan mooy coût clip yi. bi hmm. à chaque fois gars yu bari dañuy wax nga ko sànq nee nga euh, defoo pour. Euh, hmm. dafay nekk loo xam plaisir lay doon quoi mais surtout financièrement il te faut combien boo xam pour def benn clip bu net. c'est normal parce que tey boo xoolee. ba ci nouvelle génération bi boo xoolee clip ñuy def clip la yoo xamante ne dafay egg à un niveau mhm. yow sa bopp dalay jaaxal mhm. bon majeure nag si ñoom dañuy faral di am ay placement de produits yoo xamante ne moo leen di permettre ñu def seen ay coups uh-huh. et je pense que ne loolu c'est très très très très important parce que bu njëkk ñun bu ñu naan def ay clip mën nga ñoo defee benn clip boo xamante ne mën nga fay benn trois cent mille à l'époque bu bëree bu bëri après si la gelongal ñëw imposer benn ne boo ko bëggee am force fa nga dañuy fay xaalis. surtout booy rappeurs yu bees yi dañuy fay ay ay. ay 7 millions dañuy dem lu bëri am. Ah. après ñoom après ñoom da koy da koy fayeeku tôt ou seen compte YouTube. parce que da gis ñoom bu ñu génnee benn vidéo en 2 3 jours. day explosé dafa ay ay kii donc ba mu lay wax chaque fois rek nee naa leen nouvelle génération bi fi nekk waruñu leen concurrencer au contraire dañu war a collaborer ak ñoom may leen doole war leen yoon bi parce que loolu moom mooy réalité bi ku ci nekk su ñun am nga fi temps ñun jaar nga fi ku ci nekk su ñun am nga continuer tout le temps dana am génération boo xamante ne bu ñëwee da nga leen wan yoon da nga leen wan nag nga leen tegee. non yow moom yaa ngi waroo fi rek nekk éternellement. yoon ba on sait que tu fais de la musique pour le plaisir de temps nga may ñu benn mais sinon yaa ngi wane yoon en tout cas c'est un la ci plateau bi nga présenter ñu euh, clip bu bees bi ki yéegul xew on attend avec beaucoup d'impatience single bi. incha allah rabi may may indil la gosse yi wala. yàlla tere. <laughs> Bijou moo am ay doom yoo xamante ne Brooklyn shop laa leen yóbbu boutique Mouhamed en une minute ñu renversé boutique bi. Ah. si maa ngi lay jégalu ba léegi. Mouhamed loolu daf ko traumatisé ba léegi day jékki-jékki dañu may baxaw ana doomu Bijou yi ñu ngi fi ñu fi war a dagg yi dagg mbaxana yi. traumatisé nañ Ahmed vraiment. mais quand même maa leen di aussi si invitation bi. Mhm. di wax na que gars yi mën nañu continuer di toujours def seen challenge donc clip baa ngi YouTube mi ngi tudd kii yëgul lu xew. Mhm. voilà lancé nañ ko dès non façon challenge yi dinañ ko dinañ ko gën a wane waat merci beaucoup Bakhaw d'être passé sur ce plateau. Euh, tout de suite dañuy recevoir waa Acromac mais xam naa le temps ñuy dugg installé wu ñu may leen benn clip rek bàyyi maas.